bu dee bëgg kenn jotu jotu ko ci moom fàtte naa doom fàtte naa alal lu nit di bànneexoo amatul wàcc waay sama xol ndax bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ko benn benn tàggkat di di di di way moom sëñ Tuuba ci bëgg bëgg gi bi dana ko adaba qalbuka xubbul xibbi yaa sanada fa xubbu xibbika yamxu xubbakal walada kon doom neex na waaye yow bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa euh, na ko ci sa biir xol ba amuloo lenn lenn looy bëgg lu dul sallallahu alayhi wa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 waaye luñ koy digal lu yàlla digle maam Cerno borom Daarul Muxti dafa am ñu toog fi moom di waxtaan naan ab sëriñ daal lu mu la digal na ko def lu mu la teraan ko bàyyi borom daaru na gees na xanaa bu la digalee lu la yàlla digal bu la digalee lu yàlla digal lu yàlla digal nag bu la ko digalee doon ko ne sa bakkan da koo bañ da ko war a def doon ko ne sa bakkan da bañ da nga ko war a def ba ca topp mooy kii toppe day moytu gaaral bokk yi wax naa ne juróom benn yii ñuy waxtaane ci saal day yàq diggante kiy topp ak kami topp sëñ bi daa waroona sëñ bi warutoona lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ bee cipput loolu day yàq ak topp bu sëñ bi waxee nga ne daa waroon a noppi nag sëñ bi moom noppi la waroon a def ndax wax moom gënul ci moom mooy Sénégal gi Cheikh Sidi Moukhtar Daoud wax danaan Thiel sëñ Mountakha mi daa waroon noppi moo wax loolu nit nga ne eh moo waroon a waxal boppam man dem laa waaye lu ma arrêté sëñ bi daal daal di cipput te juróom benn yooyu lañuy ñuy waxtaane ci saal yi sëñ bi daa waroona sëñ bi warutoona lu tax sëñ bi lépp ak sëñ bee lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ beeg cipput murit laa waaye mooy lu ma enragé wu duma ko def murit laa waaye luñ ma waxta nii xuma du ma ko def kon ndaki kiy toppe yii day mucc ci moom te yii léegi moo bari amul benn xoolal buñ eggee ba ci kilifa wax ba noppi ñu ne nañ ko càmbar baatub càmbar ak ni mel jeex waxi kilifa seet ko gëstu ko bijjeen ko biir ak bitti seetal la neex léegi amatul kenn ku am respect bu toll nii ak lu sa dara ji rëy boo waxee xoolal ci internet bi commentaire bay jëkk a kii day saaga waxoo dara jógal fii nangam nangam wax naa ko démb kii ma ne ko bu ñu yeggee ba njabootu Sëñ Tuubaa gi ko wax nit nga may jëlu saaga jëme ci yow. kon da cay woowu melo ba ca toppit mooy aji kii toppe day bàyyee boppam ak ki muy topp day bàyyee boppam ak ki muy topp du am lu muy tànn. du am lu muy bëgg lu dul ki muy ki muy topp la mu koy tànnal ndax ki muy topp moom lenn rek la bëgg ci moom mooy idil mu rabbi laa yuridu fil murid ila al wusula naajiyan min al marid waaye isil isil murid laa yuridu abada gayru rahman ay tuxasaba ñaar ñu ñoo yam ki yare moom ki muy yar yegg mucc rek la bëgg ki niy defari li mu bëgg mooy ngërëmul yàlla rek kii mucc moo tax kii defar di ko defar moom mi ni topp woo melo gis nga mag ñu baax ñu toppoon Serigne Touba benn chaar lañ amoon ñoom ñëpp mooy déet déet mës a génn ci benn gémmiñu mag mu yaakaar sëñ Touba tàbb ci noppam déet benn baat lañ amoon mooy lu sëñ bi bëgg dana am lu ma sant naa ko def loola moo leen mayoon lii nu am kenn ci ñoom mës a wax déet duñu dellu ginnaaw ñakk seen bakkan moo gënoon a yomb ci ñoom ñàkk a jëfe li sëñ bi bëgg kenn ku ci sëñ bi mës a wax defal nangam léegi jamono jii la xew li sëñ bi bëgg kenn mënu koo naa lii daa bareek léegi chantier yi sëñ bi tàmbali na mbaar yëggul mu tàmbali jàkk ma nga doon liggéey ca tool yi lu ne la ñuy jàmbat léegi tali bi lu ne lu ne la ñuy jàmbat te yow procès yi sëñ bi li muy bari bari yow da ngaa boole sa procès yi bopp ak yaakaar sëñ bi teg kenn nungul sa sa dara bàyyi fi ne fi ne toppe gi li muy bari bari sëñ bi day tabax nga tabax kenn bëgguta nungu sëb sëriñ gën laa rafet kër day wut kër nga wut kër mu yor wata nga yor wata te léegi nag li ci a métti da bi ñëpp la fi nekkal sëriñ si daal dañuy kii mais sëñ bi ñëpp la fi nekkal ba léegi nag yow boo noppee nag sëñ bi moom du am dara lu mu wax nga ne wër loolu wuru koo am nangam wërta ne loo am téye loo am jël doo jox kenn dara ba noppi nag moom sa bopp bu boobaa nag lan lay jur ci nit ki mag ñu baax ñii meluñu ñoon meluñu woon noonu ci aw doxin dañ daan fàkku bëggu sëñ Tuubaa lañ daan xaar ci mépp mbir mu mën a doon mel na mag mu ma sa am milliard amut mag mag yi sëñ Tuubaa yi nga dégg yépp ku am milliard déggoo ko ci mag mi waaye jenn yitte sëñ Tuubaa ju ma sa jóg te saafaru wut lu Sëñ Tuubaa mas sa bëgg rek def nañ ko te tey la milliards yi gën a bari te tey la chantier yi gën a taxaw tey jii la milliards yi gën a bari waaye tey jii la chantier yi gën a bari gën a taxaw te mag ñi ñoom dañ daan fakku ba mu jeex takk mësunoo am dara lu ñu daan denc ci seen bopp waaye amoon nañ tawféex ju tol ni dégg sëñ bi ci li mu leen daan wax mooy nungoo jëf gi ne nungoo jëf moo leen wammatal li ñuy bëgg ñu mën koo am waa léegi xoola tey bu ne Cheikh Ibrahima Fall wax ma sëñ Massamba bu Bousso lu ñuy joxe misaal ci yoon rek ci ne ak taalibe wala jëf nangam ñu ne Cheikh Ibrahima Fall baa bu Cheikh Ibrahima Fall nawee sëñ Massamba Kanni Bousso ba wax ne ndokk bi muy ndaw ndokk bi ma Massamba bu so di ndaw bu doon mag kenn du mus ci sañ Tuubaa dara loolu la Cheikh Ibrahima Fall waxoon lu lu wane boobu pas-pas moo ne téewul mën a naafile gaag mën a bind alxuraan gaag topp sëñ Tuubaa gaag teewul ga doxul diggante ma xidma ga yitteem ndokk bi muy ndokk bi muy ndaw bu doon maga waaye moom fan la teg itam saraftu himmati li himmati rijali wa himmati rijali wajhu dil jalali defe naa noonu la noonu la sima sàmba kan li waxoon dama koo teewlul bu baax a baax ah wajhu dil jalali saraftu himmati li himmati rijali wa himmatu rijali wajhu dil jalali man de sama yitte yëpp soppi naa ko laxas jëm ci yittey gaaña gaaña lan moo seen yitte mooy jëmmi yàlla seen borom maa ma in tunaasiuhum dunya wala ami min almataami billadati walwalad wala li lubsiya bin faaixin anaqin wala li sururin xalla fi lbalad lan moo nekke seen bëgg-bëgg mooy ngërëmul yàlla rek jëmmi yàlla rek lañ daan ñoo ñu amoon yittee jëm ci jëm jëm ci yàlla looloo tax ñu mën a dem ba ku am ngërëmul yàlla ku nekk xam yàlla man ko man leen a naw ngir melowoowu ñu amoon kon sama yitte jëpp jëm na ca doxiinu melowoowu mu mel ni noonu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee woon te sëñ Tuubaa andi ko nga xam ne sëñ Tuubaa gën a dégg nit ñi gën leen a xam melaw wi ni dox moo waxoon moom Cheikhul Khadim bis ne ndaw yi jamono yi di ñëw dégg nga sëñ ma sàmba moom nee na yëkkati naa sama yitte jëme ci yitte gaaye te mooy jëmmi yàlla sëñ Tuubaa nag nee na woon ndaw yi jamono yi di ñëw de dañoo mel ni ku ma gëm ba noppi di ma nax dañoo jël mbuusum peñ mu dara nekkul teg fi sama kanam la ma leen di fayee nag mooy gooñ goomu benn doomu gerte loolu rek laa leen di faye gooñ goo xam ne da koy lang doo am mooy ñàkk barke gi rek fi ne ñi la dàq coow ci yoon wi ñoo gën a néew barke mboolem pas-pas bu mag ñi tëraloon ci di ko doxe soppi nañ ko ci pexe ak i palan mag ñi dana am danaa ko def ñàkk sama bakkan na gën a yomb du ko def lu sëñ bi bëgg dana am léegi noonu lii lañ ko remplacer ëskey fasaale maa ngi sa ginnaaw jëwriñ dana baax bul ma fàtte yii lañ yii lañ remplacé yii mag ñi doon doxe pas pas pas pas bu bu nit mën a góorgóorloo askey lañ ko remplacé askey fasaala de mais nit bu bëggee ñu envoyé ko day activé ku activé wul kenn du la envoyé boo bëggee ko la daa daayira bi day laaj nga joxe yóbbu sa addee ba noppi làmbaat ci sa poos na am defal ma ci sëñ bi te ngeen fasaale ma waaye envoyé ma ko te activé woo gisuñu la rek la ñuy wax mboolem yii ma la wax nag lii lañ te yoonu murit euh, ba'idatun anil ifraati wa tafriit du lu ñuy ëppale du lu ñuy yéesale kenn du ko créer ci ay pexe ki xalaat fi ne ñaata sëriñ ñoo am fi ne circulation sëriñ dafa xat léegi waxtaankat yi ay sëriñ lañ jàngkat yi ay sëriñ lañ duruskat yi ay sëriñ lañ jëwriñ yi daayira sax léegi ay sëriñ lañ parce que léegi da ngay doon jëwriñ yi daayira doo nungoo liggéey da ngay ñaan baas bi daaw daa xatoon na yokk jëmale leen ko wet ga yow laal parce que jëwriñ ah benn si da ngay jàng aju ca kaw taraa ngay sëñ Touba ji sëñ Touba damaa defar ah amatuma sëriñ toppatuma kenn barkeb sëñ Touba bi xéewal gi te bala ñoo tàggoo nga ne paas bu ma yóbbu dëkk ba yëpp ci ay pexe kalaan rek lañ tëral te mag ña xoolal sëñ Saxin Mbakke sëñ Saxin Mbakke ci mag yi sëñ yi la bokk mas naa yanoo fukki paquet seng ak ñaar ca gaar ba nooru daaree ni la daan jàng daa na root ndaa yi daana romb sëñ Touba sëñ Touba nag moo ne de ci bokk yi la. sëñ Tuubaa mas na ko wax na ko sax yi tàngalal ma baraada bi mu ak baraada bi gisul ay xal nuuru daari bi mu yor la ko doon uppee muy bax sëñ bi ne ko saxit man mi ko bind maa ko gën a man jaarale ko ca sabab ya kan moo ci mën a am problème rek la ko ci sindi di baab tox fatu baab jaali batu baab baab moo xaddimaan wala wa kaana xanaa lay daan nasro bare na ku lay wax sëñ bi laa wéeru bu jàqee wuti ku ko njabar yëpp xeeti tegle la léegi li ñuy wax plan ak pexe ak dóor moo bari ci yoon te ndaw ñi dong ko ci bëgg di sëriñ bëgg am li ñëpp am te doo sonn ba ca toppit nu ngoo mag ñi li tax ñu mënoon lu ne sëñ Masamba Kanni bi muy sañ ci Daarul Xadim boole liggéey xoolal sëñ Masamba moo ñàkk morom gor ay dëkk nu ngoo liggéey barke bi bari ba yàgg nga ne ah naa ko tasaare kat bi may jóg jëm ci sëñ Tuubaa ngërëmul yàlla ma taxoon a jóg waaye lii bokku ci addunaa nga ciy bëgg a tàbbi te léegi ku amul mbooloo jàpp ne amoo dara léegi yow natta sa bopp ak sëñ Masamba ku mbooloo mi bari sëñ Tuubaa jox la ko ñu di la liggéeyal topp la ba yàgg nga lii bari na àddina ngi ci bëgg a dugg bokk nag ki nga xam ne fu mu dégglum sangoo ngir mbooloo topp ko ñëw fi moom àdduna ngi ci bëgg a dugg kat ba may jóg li taxumaa jóg kon day daal di tontu la waxoon ah wax ne wa himmatu rijaali ci dil jalaali joojee ko taxoon a jóg saratu himmati li himmati rijaal loolooy tax mu man ne lii kat am na lu ci bëgg a lu ci bokkul noonu mag ñooñu meloon doxin woowu ñu doon dox ci diggante yu baax yii moo taxoon ñu nangoo liggéey maam Thierno borom dara daana wax ne ku du liggéey du am dara du dem àjjana ñu ne ko la tax mu ne ku liggéey du am dara ku amul dara du toog ku toogul du jaamu yàlla te ku jaamul yàlla du dem àjjana Cheikh Issa jenn sëñ Tuubaa ko waxoon Issa Dieng ba amoo taalibe bu du liggéey mu ne ko déedéet mu ne ko boo ko amee wàcc ko ku du liggéey neexut a dimbale te li ëpp ci yoon duñ liggéey léegi duñ liggéey foofu jataay ñëw nga toog fa gaaram place bu jeex nga dem ci beneen foqi baaraam ak rotali per doo liggéey ñàkk liggéey moo bare lu ci yoon wi léegi nu ngootuñu liggéey ndaw ñu bari dootuñu liggéey te mag ñi dañ daan liggéey moo tax ndigal lu leen mas a ndigal dégg benn ndigal bu wàcc ci kër mel na magum Sëriñ Tuubaa te ndigal loolu ndigal loolu jëfewuñu bokk na ci teg gi ni ab taalibe di dox digganteem ak sëriñ bi mooy gaaw a wujji ab wooteem ginnaaw bi mu ko déggee mu ne bokk na ci it te mooy war ma ji gën a mat mooy wax gar ko def ko muy sab sang te jël sa yu baax jox ko ci di ko liggéeyal nag ci di ko jox sa alal ak di ko ñaqal waaye bokk na ci it mu wax ne faw it nga fonk ñoñam ba ca ña gën a suufe sax ne ca gannaaw moo xam ay bëkk néeg la ñuy doon wala ay nangam ak nangam ñëpp day laaj ak cofeer ci ñoom ndax ginnaaw ci alal ni sëñ bi lañ bokk bokk na ci teg gi ni ab taali bi mu mu bëggal ko sëriñ bi am na lu mu koy jural nag ndax sëriñ Tuubaa nee na bëgg ga nga koy bëgg mën na laaj jural ak gelmatu ci sëriñ bi ci xool la ca te xool gam lay xool rek nee na mooy tedd nga mooy ngëneel ci yow bokk na ci war ma yooyee nag te taalibi bi war koo dox digganteem ak sëriñ bi noonu ko sëriñ bi jàngalee wax ci melo yooyu ne bokk na ci boo koy liggéeyal nga yemale ci mu ne fa ak mu ñàkk fa rek xam nga ànd ci ak cawarte te jiital ci yéene ju sel te jëf ko jëfin wu baax xam ne doo ko takk rek ci mi ngi toog di ma gis ak gisuma boo koy jëf da koy jëf ngir jëmmi suñu borom loolu moo lay jural nga neel la sëriñ bi daana wax ne ku ma mas sant jëf ju ne la may xamal def nga ko wala defoo ko saa yu ma la ko sante ba ngay dem dama lay booleeg pajuk ajo bu fekkee dellu suul rek ma xam ne jëf nga ko bu dellu see nag du ma la wax dara ay naa xam ne jëfoo lam la booleel moom ndaw la loo xam ne saa yu la sëñ bi sant matee du dellu si sëñ bi ndax ca ca kooka lay des waaye bu fekkee ne jëf ja matuti loola di dellu si sëñ bi sëñ bi it mën la bañ wax dara bokk na ci yooyee melo yooyu nga xam ne it euh, taali bi war na ko am sëriñ mooy nga te la ci mooy nga rafet njortu ci moom am rafet njort ci sëñ bi dafa bokk ci melo yi nga xam ne war na ci kuy toppee ku nekk mu rafetal ko ci digganteem ak sëriñ bi waaye booy jàppit njabootam da cay bokk lépp ci la bokk gis nga sëñ Touba naa ñii xool mbindam danaan gis bu tuddee yonente bi tudd njabootam nga xam ne bañ na ko ba day ñaan sax ci ay doomam di ñaan ci ay soxnaam di ñaan ci lépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ bi bokk na ci teggin yi ab taalibe mooy bu jàppee sëñ bi mu jàpp lépp sëñ bi am lépp sëñ bi daf koy jàppale waaye doon ne sëñ bi laa jàpp rek faalewu ma doomam faalewu ma mbokkam faalewu ma rakkam man nangam nangam sëñ bi day tere loolu ndax sëñ moom gis nga ko yonent bi saxaaba yi mbooleem gaa yu baax yépp laal ci sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi daf koo daf koo fonk loolu moo tax ku mas a gis nga askanoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waggar gam lay waggar ak bëgg gim lay bëgg loolu day yell ci taalibe bi ci digganteem ak euh, sëriñ bi bokk na ca yooye it mooy taalibe bi fexe ba bañ a sonal sëñ bi dañ ko sonal mooy bañ dugg ci loo xam ne ndax fi ne am na taalibe yoo xam ne saa yu téléphone sëñ bi sonee muy ñoom xam nañ ne problème la ñuy wax waaye am na ñoo xam ne saa yu wootee ndax sëñ baa nga daara ja ndax jege si na fi dama bëggoona a siyaare si la ma sëñ bi doon liggéey sont ma waaye am na koo xam ne moom saa yu wootee rek même bu jutu sëñ bi ka muy jot la mu koy jëkk batale